billaahi wallaahi tallaahi baara yow mi yaa ak Ousmane Sonko laa yemale ak ak Diomaye Faye ak sama jëmm ji ak Ousmane Sall bi ci kaso Ousmane Sall sax ma gënal Ousmane Sonko nag moo ma gënal Diomaye Faye que xam naa ni day xeex pour Sénégal boobu léegi te mu kaso bi tëdd te si li mu nekk la nekk. ñoom dañoo bàyyi. non wax ma dañu bàyyi wax ma dañu xam nga. Abdou Karim Xurum Xaq génn ti nga <laughs> euh, yaa quelque chose am na lu xew de. da ngay gën di attaqué mais nak patriote nga fi fekk dé gaay duñ la may dara suñu waa boko bëggé bonal gaay nga fi fekk dé Ousmane Sonko gëno ko don patriote dé gëno ko don patriote gëno ko xex ci réew mi li nga daj rek la daj wala mu daj lu raw li nga daj a ah, genn nga genn say ay siwit bootee ay wax waxu daaw ak ay lu ne nga nga wax ko xaw ma da lekk avance xaw ma ah su ma sañoon at période yi duñ la attaqué mais nag yaa ngi provoqué da nga bàyyi suñu waa ji bàyyi ko mu liggéey ah bàyyi ba mu lim digge woon ak askan bi mu teggi woon nga doog a commencé ay attaqué mais instant bii moom yaa ngi provoqué Abdou Karim Xurum Xaq waaw ah, te nga génn ci lii nga nekk génnal ci lii nga nekk frère sinon ñun nga fi fekk de ah, waaw xam nañ ne nag yow champion nga doo daw mais nag <laughs> ñun dañoo mën bis de patriote yi dañoo mën bis te dañoo mën a xeex état lañ doon xeexal Macky Sall état état kon nag su doon maa yow da génn ci li nga nekk waaw ah, te bàyyi sa attaque yii nii